Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak md énergie ñoo leen di may seen revue de presse dal leen ak jàmm yëglekaay yi dañu koy dooreek accident yu metti yi nga xam ne rek wàññi nañu ko ci ayu bés ji ñu weesu ci kaw tali bi yéenekaay bi di réew mi quotidien na fukki doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan juróom-ñaar yi ñu ngi faatoo ci diggante Koungheul ak Koumpentoum benn jakartamaan ak ku mu yeboon benn woto moo leen fël ca Mboro ba ñu ñàkk seen bakkan keneen nit ñàkk bakkanam ci ab l'accident boo xam ne rek dox na ci diggante ab camion akub gouvernement bu Sénégal ma ngay xam ne nag ni léegi tey ñu amal ab état généro boo xam ne rek dañu koy jagleel wàllu transport public bi Sud Quotidien faylu ko ne lu jëm ci wàllu accident yi nga xam ne rek mi ngi xew ci kaw tali bi kay ma ngay gën di takkarnaase ñaar fukki doomi aadama ñàkk nañ seen bakkana juróom-ñaar yooyee nag ñi ngi des foofee ci Koumpentoum ni ki samedi ji ñu weesu juróom-ñaar yeneen daal di faatu alxamis fukki fan ak juróom ci weeru ut ci diggante Ndula ak Xuru Mbàkke fukk ak ñaarit daal di ciy ñàkk seen bakkan juróom jële ci ay gaañu gaañu ci diggante Kébémer mu di accident yoo xamante ne nii rek rek ñu ngi koy nemmeeku ci kaw tali bi te ba na gëni si nag njaw ma nga cay wéy di de xam bin askan wi jamono ji nag yéenekaay bi ne ñoom ñëpp a ci nen ndax tiitaange gu ñu àndal donte ni ay matukaay nag kilifa yu Sénégal ñu ngi koy jël ngir ñu dakkal lu ñu mel waaye ba na gëni si nag ñàkkum yar geeg ñàkkum civisme ma ngay gën di fës ci kaw accident yooyee la Soleil yëglekaay ne ko lu jëm ci wàllu xeexum accident yi nag état bi jamono ji ma ngay corse mesures yi nga xam ne rek moom la cay jël source a moom itam addu jëmale ci accident yi nga xam ne rek am na ki ayu bës gi ñu weesu ci diggante Diourbel Fatick Koumpentoum ba ca Mboro yéeni kaay bi ne fukki doomi aadama ak juróom-ñett ñàkk nañ seen bakkan ci durub ñetti fan kepp Vox Populi ne ko moom kay accident weesu na fukki doomi aadama ak juróom-ñett waaye fukk ak juróom-ñeent lañu ndax ci diggante ñeenti fan rek juróom-ñeenti doomi aadama faatu nañ ca xuru Mbàkke beneenub accident boo xam ne rek juróom-ñetti doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan am ñu ci jëlee ay gaañu-gaañu démb foofee ca Koumpentoum chauffeur bi sookee accident boobee nag da doon jéem a delluwaat démb ca Mali waaye mujjanteel gi lañu ko daal di teg loxo foofe féete Goudiry jamono ji transféré nañu ko ca brigade bu Koumpentoun foofee nga xam ne rek fekk na fa ñaareelu conducteur bi fi mu toll nii nag jëwriñ ji di El Malick Ndiaye ma ngay duut baaraamu tuuma askan waaye ma ngay xam ne nii nag daañu ci jël ay matukaay yoo am solo gën a taral contrôle yi nga xam ne rek moom la ñuy amal ci kaw tali bi ci jamono ji nag président Diomaye Faye nag ma ngay sàkku ñu gaaw amal ay états généraux yoo xam ne rek dañu koy jagleel wàllu transport public bi l'observateur xëy àddu jëmale moom itam nag ci accident yi metti yi nga xam ne rek am na ci kaw tali bi jox kàddu lenn ci ay rescapé nag ñoom ña ngay nettali accident boobeek na mu xewee foofee ca Koumpentoum yër leen boobee yëglekaay Walf Quotidien faylu ko ne ko saafara si daal moo ñu jox chauffeur si nag repos obligatoire wax ci point ak mi nga xam ne rek xëy na àddu jëmale ci coow li am ca ONAS ci tuuma yi nga xam ne rek dox na ci diggante docteur Cheikh Dieng ak ki nga xam ne rek moo di jëwriñ ji di Cheikh Tidiane Dieye moom Cheikh Dieng nag ma ngay tuumaal Cheikh Tidiane Dieye ne dafa bëggoon a weñ ab loxoom ci ab dil boo xam ne rek ngay dàq kàddu yooyu nga xam ne rek moom la docteur Cheikh Dieng yëkkati ne dara amu ñi yore cellule de communication bu ONAS ña leeral ne moom docteur Cheikh Dieng daf leen a gëmloo ne woto boobee amee woon ci projet Hann Fann te loolee du dëgg moom docteur Cheikh Dieng nag ma ngay xam ne ni bu fekkente ni jëwriñ ji daf cee jéem a indi ay tontu rek ci ay kàddoom dina wane ay preuve daal di leeral lépp ba mu leer ONAS jamono ji nag ñoom itam ña ngay ngémbul jëwriñ ji di xam li ni daal mbir yi daañu ko yóbbu ci kanam yoon ndax xëy na ci docteur Cheikh Dieng Vox Populi dellu soit ci coowal woto boobee nga xam ne rek ne ñu dugal nañ ci lu toll ci quatre-vingts millions ONAS ba ngay weddi docteur Cheikh Dieng ba noppi du xëpp jëmale ci ñoom ña ngay xamal docteur Cheikh Dieng nag ni ko projet bi nag prévoirul benn yoon di jël ay woto di ko jox directeur général wala ay membres yu bokk ci unité de gestion du projet le quotidien yëglekaay ne ko ca ONAS kay moom jamono ji nag accusation ci kaw accusation lay doon pënd ba wëreegu fa l'observateur ne lu soxal daal jub jubal jubbanti nag nemmeeku jafe-jafe yi nga xam ne rek nguurug jomaay fay mi ngi koy dundee ndax ay tuuma ci kaw tuuma la xew ca ONAS nag ci diggante docteur Cheikh Dieng ak Cheikh Tidiane Dièye nag fi mu toll nii nag ñu ngi ci temps des prolongations la yëglekaay xëyee moom itam ci beneen coow mu di ay tuumay licenciement yoo xam ne rek nee ñu jaarul ci yoon te nga xam ne rek kii di directeur général moo ko amalee foofee ca port moom Waly Diouf Bodian ma ngay ragg aw deram jëmale ko ci kàddu yi nga xam ne rek moom la ñu gàll ci ndoddam direction générale ba mu jiite nag ma ngay ci tuuma yi nga xam ne rek ñetti syndicat yi tuumaal nañ ko DG bu port terewul nag ñoom liggéeykat yi ba naga ni si ña ngay taxaw ci seen opposition libération xëyee moom itam ci tuuma yi nga xam ne rek gàll nañu ko ci DG bu port Waly Diouf Bodian ma ngay weddi syndicaliste yi ne lu ñu wax dara amu ca moom moomee ma ngay indi ay leeral yër leen boobee yëglekaay addu jëmale ci leneen mu soxal contrat bi ñu dakkal ci diggante Aqua Power ak état bu Sénégal yéene kaay bi ne kilifay Arabie Saoudite nag ba jamono ji dañoo mere bay futtu kilifay Sénégal côté quotidien yëglekaay daal di xam ne ni nag dakkal bi ñu dakkal contrat boobee di ba mu jur ay ñagas-ñagas ci diggante ndakaaru ak Riyad prince héritier bi nag moom a gën si ko wàllu tàggat yaram réew mi sport addu jëmalee ci wàllu ligue des champions ak coupe CAF yéenekaay bi ne jaraaf ma ngay assuré ndax ma ngay raafale ñetti poñ yi nga xam ne rek am na ko ci kaw South End yéenekaay bi ne moom kay jaraaf ni mu tàmbalee ci campagne africaine bi nag moom lépp jaar na yoon wax ci beneen